internet du 5 TV àllema seeni nopp ma dégtaleen li si yéenekaay yi dañu koy door ak Sud Quotidien yéenekaay bi fësal si xëtam bu njëkk ni ci opposition bu dajaloo ci benn say la ñu jëm ngir dooleel démocratie ak état du droit ci réew mi journal bi ne njiital Pastef bi di Ousmane Sonko moo xàlli yoon bi Khalifa Sall ak ñoñam daal di ko cay topp tribune di ko ca feelu ndax fësal na ni waa ku jegi jot nañu rek doole ba ñu amoon ngir jàmmaarloo ak Macky Sall ci seen daje yu bari yi nga xam ni ñoo ngi koy amal ak dukki bi ñuy amal rek ci biir mi yéenekaay bi teg ca ni président Sall moo ngi càmbar ak a càmbaraat njiital Pastef bi nag moom euh, moo ngi wër rek di seeti ay ñoñam ak ay kàddu yoo xam ne rek yu dëgër la te moo ngi koy yëkkati Khalifa Sall Decroix ak seeni ñoñ ñoom yëkkati nañu rek seen ay kàddu Le Quotidien teg ni ngir jàmmaarloo ak Macky Sall Sonko ak Khalifa ñoo ngi ci yoonu amal alliance maanaam rek lëkkaloo waaye lu ñeel calendrier ñeel jongante gox yeeg goxaat yi déggoowuñu ci ndax njiital bi daa bëgg daar daar ñu daal di koy fichier électoral bi ba noppi Khalifa Sall ci direct news ne dañoo war a respecter calendrier républicain bi lu ñeel nag li ñuy wax naan daa bañ rek waa France bu ñu sukkandikoo ci laas Sonko leeral na lépp te it nag tëkku na état bi ndax xamle na ni amul benn problème ak réewu France ndax xeex bi muy xeex jëmalewu ko rek ci benn réew mu dolli ci ni ñaareelu ko vague bi moo naa rek gën a metti bu dee seen seen càkkutéef amuñu si ndam Vox Populi di ko dëggal ndax bind fi amoon te état ba ci gën a loru l'observateur ne Macky Sall ak Sonko nooyee lu ñu ba tey ndax njiitu réew mi nee na rek kenn du ko teg pression wala di ko wax li muy def opposant bi nag moom nee na ñaareelu ko vague boo xam ni rek dina métti lool ci pouvoir bi dinañu ko amal manifestation yooyu amoon fi nag li ko dalee woon ñett ba juróom-ñetti fan ci weeru ko mars Vox Populi xamle na ni état bi def na ci xayma di sondage yéenekaay bi ne téeméer boo jël juróom-ñeent fukki benn yi toftal juróom benn ci askanu Sénégal faaw l'observateur dolli ci ni Bignona wàññi na ñeenteelu victime bu faatu rek ci manifestation yi fi amoon muy Pabi Mané ay atam toll si fukk ak juróom-ñeent te bal perdu daloon ko mujjee na ñàkk bakkanam ci hôpital ba ñu ko yóbbu woon rek ngir faj ko ñu jàll ci les échos yéenekaay bi di ñu xibaar ni lu ñeel saytuwaat rek contrat bi nga xam ni moo jëm ci autoroute à péage bi état bu Sénégal euh, jot na rek téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom ba noppi nag wax li mu bëgg waa Sénacsa ba tax bi ne diiru ko lu yees juróomi weer loo xam ni ñi ko fi jiitu woon defuñu ko rek maanaam réussiruñu ko ci temps bu yàgg yàgg Le Soleil di ko dëggal ndax fësal na ni état bi jot na rek téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom ci koom-koomu autoroute à péage Dakar Diamniadio AIBD muy redevance foncière boo xam ni rek at bu nekk gën gaa néew 800 millions ci kopparu CFA lay doon te nag ci contrat bu njëkk ba mille francs dong la woon Vox li ñëw ak ñun si ñàkk bi nga xam ni moo di AstraZeneca ak coow li ci am Abdoulaye Diouf di jëwriñ bi gàlloo wàllu ko wér gi yaram moo ngi gën a dëggal rek taxawaay bi nga xam ni moom la ci am ndax xamle na ci journal bi ne Sénégal dina wëyal li nga xam ni moo di stratégie de vaccination bi ak ñàkk bii di Sinopharm ak ñàkk bii di si AstraZeneca Sud Quotidien dolli ci ni coow li am si njeexital bu bon bi nga xam ni moom la àdduna wérngal képp di waxtaanee si ñàkk bii di AstraZeneca OMS di kuréel rek bi saytu wàll ko wér gi yaram ci àdduna bi ak état bu Sénégal ñoo ngi dalal xel yi koo ñàkk ak AstraZeneca bi ba noppi nag mu daal di cay l' évidence ñëw si signalu Sen TV bi nga xam ndax li muy ñaawlu rek mooy daan bi ñu ko tegoon rek daa ware woo ak article 26 de la loi 2006 04 du 4 janvier 2006 nga xam ni nag balaa daan boobu di am dañu leen ko waroon a yëgal te daa war a am nag àpp boo xam ni day toll si juróom-ñaar jëm jëm fukk ak juróomi fan ak délai bu benn weer ngir ñu mën a jëmmal dogal boobu Bougane Gueye Dany ci yéenekaay bi xamal na Babacar Diagne ni ko lan moo tax mu amal procédure bu mu yëgluwul ci ay kayit ak lan moo ko jàpp rek ba tax mu jël dogal boobu ba pare nag tere leen ngir ñu amal recours pour annulation bi Le Quotidien àddu ci CAN 2022 bi yéenekaay bi ne liste gaynde yi tey lañu koy fësal ba tax mu bind nii ci jaayante doole rek lañu jëm ci diggante Alioune Cissé ak club européen yi ñu jeexal ak libération mi ñëw xibaar benn bi mooy Coly Faye di benn paa bu am juróom benn fukki at ak ñett moo siif benn xale bu jigéen bu am juróom-ñeenti at lu toll ci ñeenti yoon yéenekaay bi ne gannaaw bi ko gendarmerie bu mbooroo tegee loxo moom paa bi dëggal nañu rekk moo def li ñu koy toppee te xamle na ni moom ak papaayu xale bu jigéen boobu ay xarit benn bakkan lañu beneen xibaar bi nag mooy ay révélation yu ñu def ci faatu ko Awa Cissé nekkoon rekk benn benn xale bu jigéen bu am 17 ans te doon liggéeyee rekk ci benn kër foofee ca Mexe te ñu ne rekk dañu ko dóor ci bopp mu daldi faatu yéenekaay bi ne euh, ci jàppante ak patronam euh, si la ñu ko dóoree ay yoon yoon ci bopp loolu nag moo ko faat ndax amul woon ku ko wàllu te it guddi la woon moom patron bi nag di ngoone faal euh, ca ba ñu ko tegee loxo nee na rek da koo bëggoon a jubbanti ndax Awa Siise daa dem rek ba bëggoon a boole boppam ci famille bi moom nag ngoone faal defeere nañu ko ca parquet ba pour coup et blessure volontaire te mu jur rek faatu bakkan fi la ñuy narkee pelisi yéenekaay yi ma delloo leen seeni nopp ba ëllëg incha allah ngeen jëf